Euh, peut-être ñu koy interpréter ainsi que ni euh, itam dossier Adji dit bi ñëpp ngi li que Tamba lu mel aussi dina dit li que justement dina comme sûr beaucoup de et de salive autour de ce dossier exactement ah bien sûr que oui évidemment évidemment parce que dossier Adji bi c'est pas un petit dossier quand même c'est pas un petit dossier. Hmm. on a tout vu concernant ce dossier-là. On a tout entendu concernant ce dossier. Ce dossier a brisé des des, des, des, des, des, a brisé des carrières. Ce dossier a déstabilisé des familles, a divisé des familles. Mais est-ce que position magistrat justifie nos euh, sanctions exactement Position euh, ñoom Maham Diallo ak Abdou Karim justifié exactement exactement euh, li nga xam ne moo di seen sanction tey jii foofu si Tamba. manam décision yi ah, décision yi ñu taxawee woon si boobu de dossier. est-ce que lolu justifié na exactement. c'est bi bi bi bi. affecté terrain foofu do doon Tamba. manam moko jur niñ ñu taxawoon ci dossier bi la fallu Tamba nee la pour la plupart kuñ fu mësa mës ko né sanction la. Hmm. mais sanction la kuñ ñu mësa mës ko né rek la wax sanction nga ngañ Demba Touré fa lañ ko yóbbu en réalité ban deuk la woon sax. Euh, Matam Matam. bañ ko fay sanni lan mo taxoon ñu sanni ko fa parce que dañ ko bëggoon sanctionner ñoom bu ñu la bëggee sanctionné kay zone yooyu lañu lay yóbbu parce que xam nañ ni foofu climat bi xam nga des na tàngaay beeg yooyu yëpp sore say mbokk est-ce que yaa hmm. yooyu si yooyu yooyu moo tax en réalité foofu ay kii de ay ay terroir de sanction lañ ko lañ ko lañ ko jàpp la ko administration bi bët boobu la ko administration bi di xoole donc kon jàpp naa ne daal en résumé si loolu seen taxawaay ca dossier booba moo indi lii. Ah, mais là où on parle d'un changement de système sanction euh, sanctions, il y a ko xeex waa passif tey ñu beaucoup ko indiwaat donc est-ce que réellement peut-on euh, prévoir que ni am bien un changement. mais ça n'a rien à voir Nous avons def loo xam mënoon na mënoon déstabiliser une république. mais nous avons di une si yoon te mën na bañ a yem fii itam. bañ a

Euh, duma waxu récompense mais dal ñi ci taxawon taxaway bo xam taxaway deug fu leen mëna yobbu fu sut fañu nekkon jarnako parce que deug bobu wax deug moment bobu wax tu deug yu bare bare dañoo waaf parce que ragal nañ am ci ñoom seen carrière lañ doon bañ briser ko mais comme seen carrière mo leen gënaloon réew mi tay aussi tay nga sa sa gars sabassi fay la a été honoré quoi que l'on puisse dire peuple bi bu la honoré honor bi honor bi le peuple bi di jox mo ëpp doole fouf ñak dëgg gi ngay wax. Mm. ci moment yo xamanteni dañ la défal ay privilèges yu tuute tuute tout, Serigne Bassirou Gueye yaa ngi dégg si dossier scandale biñ koy tudd foncier bi. kañ lañ ko ko jox quelques mois juste quelques mois après l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr y a des gens qui ont posé des interrogations hein pour savoir pourquoi ñu jox ko lolu si quelques mois après juste l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr est-ce que nous, par rapport à son à sa position pour défendre le régime pour défendre l'exécutif lañ ko c'est des interrogations. Sylvie a apporté beaucoup de préjudice. beaucoup de préjudice oui. Nous euh, devons défendre. les sénégalais Le dossier bi dina bari ñum daaneel man kay waxoon naa la fii ne la xaaral rek fait li ñu def yàkkamtiwuñ ci dara bu heure bu parce que ragaluñ ragaluñ t'a am courage bi ci li ñuy def. alors c'est ñu deseen si ba bataille le président Bassirou Diomaye sa position sur euh, li au euh, conseil supérieur de la magistrature bi tay li ñu jot tey ñu jot exactement est-ce que duñu njortes que ni ba tay le président aura euh, sa main si li nga xamné fonctionnement bi. wa mais xam nga le président de la république sans rek maa ngi koy wax certes nag donte moom ñoom waxoon nañu bu ñëwee ñi gën ci conseil supérieur de la magistrature. ci projet PASTEF. lolu mom c'était un constat. Hmm. waxon nañ ko. Hmm mais gis nañ ni dafay dess conseil supérieur de la magistrature tu as vu Le problème bi qu'il dafay dépasser nek nam conseil supérieur de la magistrature parce que c'est avéré xam nga sénégalais yi lu tax ñu décrier woon nekk président ci le conseil supérieur de la magistrature mm. parce que le régime précédent on avait senti la main du président Macky Sall dans le fonctionnement de la justice gis nañ ko yaa le procureur Abdou Karim Abdou Karim Ndaw hmm. toog ci benn télé bu nit ñi di suivre mu ne jàpp na nit président mag Sall ne ko bàyyi bàyyi ko Macky toog na jàkkaarloog presse bi ne yenn dossiers yi maa ko teg maa ko nekk est-ce que hmm. xam nga yooyu yëpp sénégalais yi gisal ko seen bopp déggal ko seen bopp moo leen jox véritablement constat ba ñu def nii le président moom mooy manipuler li nga xam ne que mooy justice bi Fallou li fi xewoon yëpp ñañ doon jàpp ñëpp fu ñu féete woon Pastef pour la plupart ci opposition bi lañ fete woon ñeneen ñi ànd ak président Macky Sall dara du leen dal xam nga liy wane ne ñëpp Pastef lañ bokkoon ñi ñu libéré rek libération vague de libération yi amoon moo la ko woon ñëpp Pastef lañ bokkoon léegi nag kumba am ndey kumba amul ndey boobu loolu la ko gënoon a may doole muy justice bu jengoon defoon nii ànd ak exécutif bi. loolu nak luñu fësoon la moo taxoon gars yi ni bu ñu ñëwee dinañ fexe seppi loxo président de la république. maintenant comme léegi le président de la république dafay des ci biir conseil supérieur de la magistrature c' est important ñu attirer seen attention aussi si li fi amoon dem. Hmm. maanaam même bu fay des itam na fexe ba bu mu am influence ci magistrat yi seen liggéey. donc instant bi li mu waroon def def na ko chambre na li nga xam ne que moo di magistrature bi. Ah na leen bàyyi ñu liggéey exactement. seen coobare waaw ci seen coobare na leen bàyyi ñu liggéey.